Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak Zahra Iyane Thiam nekk candidate ca mairie bu Sicap Liberté ñoo leen di may seen revue de presse dalee na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyanto yéenekaay gi xëy dañu xibaar naan ñu lu waaye doon jaay léegi tey mu lamb suba la suba yéenekaay gi di la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu élection locale yi ni suba la waaye nag lu toll si ñetti junni ak lu fekk téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay liste ñu am ñu fas xëccoo lu toll si juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay commune war lu toll si ñeent fukk ak ñett ci ay lu toll si ñaari téeméer ak juróom juróom fukki junni ci ay primo votant la ñu lu toll ci juróom benn million yu fekk ci ay électeurs ñëw fas dem ci li nga xam ne mooy mbañ gàcce yéen a gi de la Soleil nee na yi gars yi jël nañu si seen i matukaay ndax lu toll si ñaar fukk ak ñaari junni ci superviseur ak yoo xam ne recruté nañ leen yéen a kaay gi de l'Observateur nee na en tout cas li am ba des ñoo ngi jëm ci élection locale yoo xam ne nar naa lëndëm ba maara détail yi yéen gi nee na campagne bi jeex na jamono ji tànn moo des yéen a kaay gi de libération xëy di ñu xibaar naan ñu électeurs yi jamono ji ñoo seen jégul ko ya ñoom ñooy tànn journal bi nee na lu toll ci fukk ak juróomi junni yu fegg juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay bureau de moo am yéene kaay gi di 24 heures xëy duñu xibaar nan ñu jamono ji ndax nekk nañ ci réew moo xam ne réew mu sérieux la ndax bëri na ci ay candidat yoo xam ne maanaam séddale xaalis lañ fi nekkee de gauche à droite ngir ku leen voté la yéene kaay gi di direct news nee na en tout am ba des la mooy élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñaar fukk yi ci maire sortant yi ñëpp dañuy yéenekaay gi yi dina bëri ay ministre yoo xam ne danañu tëb ci gouvernement bi yéenekaay gi di Le xëy dañu xibaar naan ñu ginnaaw campagne bi ginnaaw campagne bi wax ji ak coow le jamono ji maanaam bisub dëgg bi suba ci dimanche la yéenekaay gi di évidence ci xët mu njëkk ma ñu fekk fa Pape Diop candidat ville bu Ndakaaru ci coalition Bokk Gis Gis jamono ji nag am na renfort ndax Mamadou Diop Decroix ñëw na fekk si ko bu jéngoo moom bu Dakar naan ñu élection locale yi jamono ji xeex bi dina tar lool cadre unitaire de l'islam ñoom nag daat nañuy woote jàmm ma ngi ci journal bi di bés bi yéen kay gi di leen foo xëy di ñu xibaar naan ñu waxtu dëgg wi daat nay jot lu waaye doon jaay léegi tey mu lamb enjeu yi am si élection yi moo bëree yéen kay gi ne na fu ci mel ni Kolda diggante Abdoulaye Bibi Baldé ak Mame Boye Diao kan mooy gagné Ndakaaru Njaay xeex bi tar na fi lool yéen kay gi ne na ca diwaanu Louga Moustapha Diop ak Mamour Diallo kan mooy gagné xeex baa nga mel ni tuleeg male sa diwaanu Ziguinchor Ousmane Sonko moom moom dañ ko kon ndam ne ngir mu gañe ci nii wala ci naa wala carrière politique am yàqu ca diiwaanu Saint-Louis Mansour Faye ak Mary Teuw Niane ñoo nga fay giita ngaas yéene kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu niki démb ci àjjuma ji bëri nay candidat yoo xam ne ñoo nga woon Masalikul Jinaan jullee fa àjjuma yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na élection locale yi haute tension politique yéene kaay gi xibaar naan ñu douane ak sûreté urbaine tas nañu ab mafia trafic drogue diggante Tamba ak Dakar dafa am ñu fi doon trafiqué douane ak sûreté urbaine teg nañ leen loxo yéen a kaay gi di enquête xëy duñu xibaar nañu ni ki démb Mali doon nañu rendre hommage ki nga xam ne mooy Ibrahima Boubacar Keïta mi nekkoon seen njiitum réew te génn àdduna fan yi nga xam ne moom la ñu génn yéen a kaay gi di laas xëy duñu xibaar naan ñu kisam sa ak sayam sa lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi gerew yi nga xam ne sumb nañ ko ñoom nee nañu duñ si deltu ginnaaw seen juróom benneelu plan d'action xam ne moom la ñu tëgmal yéen a kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu Aliou Cissé mi jiite